Umar euh, ñu njëkkee ak Walfadjri ak euh, arrêt lii convocation yi balaa ñuy dikk ci arrestation yi. Mhm. mooy euh, Moustapha suba convoqué nañ ko Babacar Kewlo. Mhm. gis nañ arrestation Pape Ndiaye ak bu Coro boo doon jàngat lan moo xew réellement ak arrestation yooyu ak fi ñu toll ci liberté de la presse Sénégal. pour yow lan moo waral loolu. waaw loolu moom mënuñu ko gisee lu dul intimidation mooy maanaam xokkatal nit rek. Euh, parce que tey jii bu fekkoon dañ arrêté woon Pape Ndiaye yem ci ñu ne waaw mais Pape Ndiaye jàppoon nañ ko fi jàppaat ko tey te xam nañ émission balance bi muy def nit yi nuñ koy seetaanee te nit yi dañ koy déglu bu baax ndax day invité ay experts juridiques lu ci ëpp ñuy leeral askan bi ci wàllum yoon ñu jóge ci Pape Ndiaye tey ñu jàpp soxna soo xam ne mooy kii Coro Mandela jàpp ko te mu doon soxna soo xam ne tamit dafa ëmb. Mhm. am sept mois je crois bien. Mhm. xam nga nit tamit xanaa bu ëmbee ba am sept mois sax nekk nit koo xam ne il est légalement domicilié xam nga fu mu maanaam mënul réer fii Sénégal waroon nañ ko may sax bàyyi négandiku ko muy liberté provisoire. Mhm. ñu jóge loolu tey ñu ne Moustapha Diop convoqué nañ ko à la sûreté urbaine. kon loolu daal dina gën a teeloo suñu xel ndax euh, sénégalais yépp ñoo ngi xool Walfadjri temps yi ni ñu leen di def. parce que yàggul dara coupé woon nañ fi seen signal ci loo xam ne nii bu fekkoon leneen ngeen doon def sax ñu ne waaw mais ci liggéey bi la bokk parce que tamit journaliste moom bu informeetul bu yaboo na na tëj ay teleem ñun tamit ñu tëj suñu journal keneen ñu xool leneen lu ñuy def. Mm-hmm. waaw parce que quand on est journaliste on l'est à 100 pour cent ou soit on cherche un autre métier quoi ñun loolu suñu liggéey la moo tax man loolu moom dama koy ñaawlu te presse bi yëpp dañ koy ñaawlu parce que presse bi. Euh, gis nañ ni temps yi euh, d' abord am na benn tentative de division de la presse loolu tamit dama koy ñaawlu parce que presse bi dëgg la waaw waaw ni ñuy xaajee presse bi euh, presse bi dëgg la ligne éditoriale yi bokkul kii dina liggéeyee nii kii liggéeyee am na rajo boo xam ne sax wàllum koom-koom lay kii kon daal ku nekk am na ni ngay liggéeyee mais ku nekk ni ngay liggéeyee tam dañ la war a bàyyi nga def sa liggéey mais bu fekkee ni dañuy jàpp ñii xoqatal ñii ñii ñu xañ leen publicité ñii ñu jaar ak ñoom ñii wala ñii ñu amal leen xaalis bañ leen ko fay genre affaire yooyu yooyu yaana beaucoup dans la presse loolu dañ ko war a bàyyi Pape Alé tamit yàggul dara Pape Alé moo koy nuyu sama sama grand la yoo xam nga Pape Alé relation yu ñu am tamit yàggul dara ñu jàppoon ko fi ba tey Pape Alé tey jii lu ñu doon seet mooy peut-être Pape Alé pour muy bañ a wax loolu noonu ça peut pas prospérer loolu moom foog ñu bàyyi ko parce que am na yoo xam ne sax bon peut-être yenn yi duma ma ci dugg quoi mais boo xoolee daal man daal mbir yi tee na sama xel ba pare ñaawlu naa ko waaw dañu war a xool nu ñu war a mën a dimbalee press bi parce que presse service public lay def kenn du seetaan wal fajiri journal di fay doo fay cent franc doo fay deux cent doo fay mille franc da ngay ñëw rek taal sa télé mhm. seetaan ba kontaan kon presse service public lay def. Mhm. te gis nañ ni booba léegi tamit service public boobu surtout yéen parce que fépp foo xam ne ni am na problème courant Walf nga koy déggee fépp foo xam ne am na problème ndox Walf nga koy déggee kon loolu nag bon buñ nee laa waa des san voix dëgg la quoi moo tax man daal surtout arrestation Coro Mandela man moom loolu moom la dossier boobu dama gis nga bind ci source a euh, am na journal bi ci bu bindoon sax euh, ne moom bi mu dee dafa avoué mhm. yow nga bind euh, ci sa une en tant que rédacteur nga ni nga weddi loolu. Mm-hmm. na coro di ñett. waaw boobu peut doo dugg ci biir biir mais am na loo ci xam. Mm-hmm. lan nga ñu ci mën a wax. waaw euh, parce que dossier boobu moom bu ñu nee Coro Mandela dafa avoué loolu moom du dëgg parce que man man moom en tout cas samay source li ñu ma wax te. Euh, wax dëgg boo ko bindoon waaw waaw wax dëgg yàlla du ma stigmatiser kenn nag quoi mais ma wax dëgg yàlla euh, Coro Mandela moom dafa weddi li ñu ko tuumaal. moom dafa ne en tant que journaliste loolu c'est plausible maanaam lu xel mën a nangu la moom dafa ne en tant que journaliste boo xam ne day yëngu ci wàllum people tey jii am na benn groupe boo xam ne nii groupe Topka waa Topka léegi moom dafa bokk ci groupe bi pour di am ay information loolu mën nañ ko nangu parce que tey jii euh, day mel ni euh, waa Ocritis par exemple Ocritis am Ocritis affaire de drogue mais dangay gis benn euh, agent Ocritis boo xam ne day tux sax drogue day day jëfandikoo sineebar pour mën a infiltrer ay milieu loolu liggéey la quoi comprendre nga mhm. léegi ki nga xam ne nii moom tey jii dafa bokk ci benn groupe nga xool liggéeyam nga xam ni kii ci affaire people lay def. Mhm. comprendre nga. Mhm. léegi après dossier boobu il y cinq charge mhm. cinq charges yi ay association de malfaiteurs ak yooyu moom ñu boole ko ci ay association de malfaiteurs ak yooyu waaye mu am yeneen charge yeneen ñaari charge yi moom trois charges lañ ko toppee ñaari yeneen ñaari charge yi toppeewuñu ko muy wàllum yi léegi ma yaakaar ni nit bu fekkee ni yow. da nga def association de malfaiteurs comme man tey jii dama ànd ak ay nit ñu lëkkaloo pour def association de malfaiteurs ah nit kuy kuy def association de malfaiteurs pour def ñaawteef xanaa danga nga ciy jublu dara wàllum koom-koom wala wàllum dara mais moom toppee ñu ko escroquerie ça veut dire que ñoom nangu nañ ni Coro Mandela deful benn acte boo xam ne day wane ni moom dafa doon bokk ci groupe pour récupérer xaalis wala dara kon sa pose problème waaw ça pose problème man j'en ai parlé ah parce que dañ ci doon waxtaan parce que man euh, dossier moom bu kii bu bu bu bu jibee man damay xool rek dama bu ma xoolee presse bi ñoom tamit ñenn ñi lu parce que tamit aussi il faut que la presse aussi qu'on arrête aussi de consommer comme la Bible wala le Coran li li nga xam ne nii police moo ñu koy jox quoi parce que tamit bon c'est vrai que la police dëgg la des fois la police informe les gens police dañuy informer. dëgg la leen manipuler. waaw mais mais waruñu nangu ku leen di manipuler quoi dëgg la tey jii police mën na la di jox ay dossier di la jox di la jox di la jox ay information la jox ay information ba benn jour boo xam ne nii comme mu demee nii rek comme affaire les forces spéciales wala affaire ñuy toppee terrorisme ñuy dugal ay information yoo xam ne nii peut-être ñenn ñi ñoo la koy dugal mais c'est erroné euh, dégg naa Moustapha Diop di ko wax mais loolu c'est c'est très pertinent. lu mu wax noonu c'est très pertinent journaliste foog ngay def triangulation di def recoupement di def vérifier moo xam ministre moo la ko wax moo xam juge moo la ko wax moo xam police moo la ko wax da nga war a vérifier te dossier boobu bu ñu ko xoolee ba ci biir biir journaliste yi man jàpp naa ni war nañu gën a jàppale Coro Mandela ndax man am na loo xam ne nii daal man dossier boobu man am na lu ci lu ci tee sama xel daal. lan la koy wax lu ci tee sama xel mooy comme li ma la wax tey jii nii association nit boo ko toppee association de malfaiteurs nit topp nañ ko. Coro Mandela ñenn ñi naan non euh, moom elle a reconnu les faits elle n'a jamais reconnu les faits elle a moom dafa ne moom dafa bokk ci group boobu dans le cadre son métier day liggéey. waaw li nga pour am information waaw kay loolu day am yow tey ji yow tey ji par exemple people ngay def. comme par exemple kuy def people tey jii man bu may def people man maa ngi nii man damay def journalisme d'investigation. Mm-hmm. waaw je suis censé collaborer man dama dama koy sekk ak ñu nekk quoi damay parce que damay def investigation des fois man man bëgguma sax di feeñ télé. parce que des fois damay waaw waaw parce que des fois xam nga loolu day am. Mm-hmm. déggoon naa benn journal bu koy wax naan ay jamono dama doon mën a di dem euh, ci commissaria yi di mën a dem ci kii mais léegi mënatuma ko parce que ñëpp xam nañ ma léegi. fu ma dem ñu ne diw moo ngi nii investigation dafa am journaliste day def investigation moom lu mu def c'est c'est louable parce que c'est un day day def investigation elle la le droit tey jii bokk ci benn group pour xam li xew waa pour xam li xew parce que groupe topp kaa nga bokk ci groupe pour xam li xew pour xam li xew loolu nag jàpp naa ni waruñu la toppee dara xaaral ma jox saa mu relancer la euh, pour dëggal li nga wax man des fois nga woo ma Mm-hmm. waaw nga woo ma am lu lëcc lëcc noonu lu lëcc ci liom sax. waaw woo ma ne Omar ci xalaat. waaw parce que loolu la démb rek bu du bu du démb rek démb rek ba ma déggee ni Mansour Diop dañ ko dañ ko convoqué. Mansour Diop kii dëgg ah Moustapha dama juum Moustapha Diop xam nga bu dul dara woo naa la. Mm-hmm. mooy xam parce que tey jii journaliste à chaque fois information mooy il faut toujours vérifier quoi. da nga koy recouper di ko vérifier. waaw ah, xëy rek di takkal nit waaw xëy nit. parce que wax nañ dara ci nit yow da nga war a jéem a vérifier. xool ñi ko jege surtout nag surtout que kooku c'est une consoeur quoi parce que tamit quoi qu'on puisse dire ñun journaliste c'est la même famille tey ji bu jàppee Walf suba. amaana sur source A lañ jëm waaw xam nga loolu mënul ñàkk parce que gars yi moom presse bi yëpp ñu one dans le même bateau yaa ngi dégg donte ligne éditoriale yi bokkul mais Hmm. suñu suñu liggéey benn la de waaw voilà allah waxtaan bi am na solo hmm. euh, démb maa ngi dégg benn waaye sax nee na est-ce que journaliste yi jotut ngeen soppi ni ngeen di doxalee di liyaar bañatee nekk di wax xam nga réew mi bu tollee foofu rek day euh, xaw a compliqué maanaam li ngay wax au lieu nga kii ko mais nga liyaar ko léegi yaa ngi expliqué ci kii bi parce que kiiwu euh, coro bi mu nekk loo xamante ne bi ñiy seetaan film mafia yeeg yëpp xam nañ ni procédure bi noonu lay doxee noonu lay demee maanaam pour infiltrer ñi nga xamante ne bi ñooy kii est-ce que tamit comme que lu mel ni mën na ci am est-ce que léegi ñoom journalistes yi comme yow yaa ngi ci milieu bi bu ngeen di suivre ci genre affaire yu mel nii pour lu mel nii bañ leen cee mën a dal parce que lii leen ci dal nii tey li nga xam ne moo ci dal coro est bu ëllëgee yu mel nii doo jéem a collaborer ñenn ñoo xamante moo xam euh, police ak comme que ñoom ñoo lay woo après pour lii est-ce que tamit mënuñoo ubbi yeneen bunt yoo xam tey bu ma woon ne ma jigéen defal ma people mais mu wax ma ay piste yoo xamante ni bi kii est-ce que kon du ubbiwaat yeneen bunt yoo xam ne mën nga collaborer ak ñoo xamante ni ëllëg si biir dinañ la mën a loolu parce que tamit problème boo gis rek. war nga mën a retrouver encore ci problème bi ay solution peut-être am na ay failles yoo xamante ni bii feeñ na tey bi ñu nee coro nii rek mais bu fekkoon ne am na ñeneen ñoo xam ñu ngi nekkoon ci ginnaawam yëgoon nañu kii bi euh, comme police ak yooyu ñi nga xam ñooy def enquête est-ce que du ngeen gën a sécuriser seen mbir yi. waaw waaw euh, waaw xam naa ni moom euh, journaliste moom on peut pas recréer la comme li ñu wax. Hmm. journaliste moom du mës a changer. policiers yi tant que ñoom ñoom ñoom ñoom du changé seen liggéey ngir ñun. ñun hmm. tamit dañuy continuer di liggéey ni ñu liggéey y a les nag du métier. mais am domaine yoo xam da ngeen ci collaborer. waaw waaw waaw wax entre journaliste ak police ñu collaborer ci yenn. waaw waaw dañuy sax euh, euh, euh, collaboration sax day am. Hmm. collaboration day am comme comme ni ma la ko waxee parce que. quoi qu'on puisse dire ñun journaliste dañuy soxla policier quoi man man damay soxla policier chaque instant parce que da dossier boo xam ne tey jii bu xewee tey tey ji police rek moo la mën a wax parce que policiers ñoom ñooy déglu nit ñi à chaque fois man chaque jour ma woo policier chaque jour ma woo commissaire wala chaque jour ma woo ainsi de suite quoi loolu mënul ñàkk parce que tey jii nii boo déggee nii euh, par exemple dossier bon du ma bëgg nag xam nga affaire de source ak yooyu day xaw a kii léegi mais journaliste ak policier moom dañu mës di collaborer mais mais lenn laay bañ mooy li may wax à chaque fois parce que journaliste bi daal bu mu nekk ngoo nekk lantinoor yow donc dafa mel ni waaw loolu c'est très important mm-hmm. Mm-hmm. Euh, parce que am na dossier yoo xam waaw parce que am na dossier yoo xam parce que dossier Coro Mandela bi da mm-hmm. koy da ko ciy gis parce que nit ñi dañuy yaakaar ni Coro Mandela dafa nangu quoi ne moom xam nga loolu waa Walf sax bu ñu ko déggee dañuy naan dañuy xaw a reculer waaw léegi lan mooy problème journaliste yi le fait que yow ni nga gëstoo ba am est-ce que ñi nga xamante ni bi tamit bind nañ le contraire le fait que ñoom defuñu li nga bi moom jàpp man jàpp naa ni peut-être yow def nga li nga xamante ni mooy liggéey bi ci war mais ñi nga xamante ni parce que dafa mel ni pareen saa yi yi dañuy dóorante ci seen biir maanaam ñii am nañ problème ñu ñëw enfoncé waaw loolu moom loolu moom du yoon parce que euh, man maa ngi fàttaliku Pape Alé Niang moom fi am problème mhm. presse bi man ba ñuy réunion maison de la presse maa ngi fa woon ah. comprendre nga parce que loolu mooy suñu devoir tey jii te su su ku mel ni Pape Alé Niang par exemple nga xam ne ak liggéey bu mu def ci journalisme. xam nga ak convention des jeunes reporters loolu yàgg na. comprendre nga léegi mooy li ma doon wax sànq rek pour éviter loolu mooy comme li nga doon wax mooy lantinoor bi. dañu war a di éviter. tey jii surtout yenn dossiers yi. Mm-hmm. surtout yenn dossier yi parce que tey jii man bu ma toogee dégg ñu ne jàpp nañ coro bu walf comprendre nga. lan moo tax ñu jàpp ko man duma man yéex naa bind ci dossier boobu de parce que damay toog observer man euh, lu ma lu ma lu ma benn kii euh, lu ma lu ma doon kii doon wax Abdoulaye Bamba Diallo bu bu bu bu kii bu bu Nouvelle Horizon ba mooy temps yi may nekk Nouvelle Horizon ne ma euh, il faut pas être pressé à dire la première connerie quand même. Mm. tey jii ah, dara ah, waaw waaw waaw ah, ah mais quand même tey jii dara xew rek. nga bëgg a non tey tey jii woy kenn waruma ko njëkk bind rek woy Coro Mandela rek nga bind. waaw waaw waaw lan moo indi l'observateur eh. man dama mooy Coro avant mi yëg ni dañ ko convoqué L'Obs bind na ko. loolu nan la mën a nekk ak nan ko xamee. waaw mooy li ma lay wax sànq rek mooy fuite yi. moom mooy fiiti parce que dossier yu bëri loolu loolu loolu lecture boobu foog gars di ko am mhm. dossier yu bëri tey jii nii comme affaire li ñuy ñaan affaire terrorisme yi naan y a des terroristes Sénégal affaire yi mais ah, bëgg nañ ko xewal waaw mais gars yi ñoom ñoo koy fuité mhm. comprendre nga man am na loo xam ne nii boo ma ko joxee mën naa ko consommer am na loo xam boo ma ko joxee ak dans un contexte particulier du ma ko consommer wala bu ma ko kiwee damay naan selon tel uh-huh. comprendre nga parfois moom peut-être logique bi mu nekk mën nañ ko ko nangul mais souvent da ngay gis euh, yenn euh, information yi su amee sax même ci wàllu côté police balaa balaa police sax di def enquête da ngay gis ñoom comme genre source ah wala yeneen journaux yi gaawantu dem bind pour bëgg a jaay seen seen seen seen i ay journal moo tax parfois du ñu dem sax pour demonde information wala ñu xaar ba enquête bi pare ba police génn génne wax li ñu li li nga xamante moom lañ jëlee ci enquête bi ñu door ko bind mais ñoom ñu gaawantu tamit mooy euh, division bi muy wax tout à parce que mënuloo am sa benn confrère wala sa consœur bu nga xamante dañ ko dem dañ ko convoqué wala ñu jàpp ko tëj ko nga jël di bind si moom di ko chargé euh, sans pour autant yow mi nga xamante ne nii gis nañ ci wàllu médecin yi li leen daloon la fois passée ak problème Ousmane Sonko yi wala leneen ak leneen à chaque fois bu problème année ba ci borom transporteurs yi sax kenn ku ci am jafe-jafe solidarité boobu ngay gis ci seen doxalin ak ñu koy wane fépp pourquoi mënuñu jéem a fexe organiser wu ba te de telle sorte que képp ku amati problème du ñu jéem a fexe nu ñu lay bindalee di la gën a indil problème mais au moins ñu jéem la soutenir jàppale la ci li nga nekk ba nga génn ci ak jàmm gisatuñu ko vraiment waaw waaw léegi problème bi foofu mooy lan man mm-hmm. euh, xam nga wax moom da ngay xool fu mu tàmbalee. Mm-hmm. Euh, da ngay xool nii euh, peut-être pap Alé maa ngi la doon wax ni def nañ fi ay réunion mm-hmm. gars def nañ fi ay cotisation pour jàppale ko pour kii def génne ay flyers sok ay t-shirt def ay ay activité teewul dem nañu xool ministre de tutelle yi ministre de la communication dem nañu xool euh, mise de la justice comprendre nga mais day am dossier yoo xam ne xam nga tey jii par exemple euh, dossier Coro Mandela duñ ko présenter nit yi am na nu ñu koy présenter nit ñi nu ñu ñu bëri dañu naan wéy moom lu mu def ñoo ko to lu ñu koy toppee moo ko def quoi ah, nga kon nit ñi benn journal waaw waaw loolu laa lay léegi chargé ko quoi waaw waaw loolu am na am na nu ñu koy kiiwee comme tey jii Euh, tey tey boo yeewoon ñu ne woy Omar Ndiaye ñoo ngi koy toppee lii am na lu ñu may toppee tamit doo leen ma jàppale presse bu ñu ma jàppale parce que dafa am ce qu'on appelle les délits de presse. Mm-hmm. xam nga dans le cas d'espèce on parle d'un délit de presse. li délit de presse loolu nekkoon ci TFM bi mu defee euh, choc bi na ivron dawal gisoo ñoom. mais ñu ci sax. waaw waaw kay waaw te dafa considéré woon ak problème mu Pape Alé Niang teewul gisoo voilà waaw waaw. amul fu mu waxee yàq Papis mm-hmm. Diaw. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mais. ñoom fu ñu toogee même seen plateau sax. affaire coro pour ñoom. dafa mel édition spéciale sax. Oh, te buñ ci wax c'est juste pour le. waaw loolu la quoi man daal man. léegi lan moo indi loolu ba man man mooy. xaaj nii xeex bi lan lan moo indi non presse bi moom. <laughs> xam nga xam nga xam nga waxtaan ci sa famille nag yombul quoi. parce que je dis c'est c'est la même famille quoi Omar muy man muy yow Pape Ndiaye waa waa waa xam nga xam nga xam la la la solution moom la solution moom waa la solution moom presse bi nii hmm. ah presse bi moom euh, solution bi du yomb de parce que tey jii solution parce que presse bi dafa am des patrons de presse qui sont derrière hmm. yoo xam ne nii des fois hmm. euh, ay ah, wax nga lépp mooy ay xam xam nga patron de presse yi bokkul xam day am ay patron de presse yoo xam ne business moo leen ci dugal am patron de presse boo xam ne nii peut-être moom c'est un journaliste day man source A bi ma nekk Daouda Thiam journaliste la comme man comprendre may woo expliquer mon projet. moo tax nga am liberté toog fii sax. waaw comprendre même bu ma mayuloon liberté man yow xam nga ma man man ma même Mbagnick Diop sax ma tee man man maay bañ a wax bañ a wax mais bu ma bëggee wax moom nit man nit mënu ma teree wax quoi. waaw yeneen gars yi ñu bañ a nangu loolu far fii rek da nga war a doxee ni nga xamante ne ni moom laa bëgg. alors que yow sa liggéey méngoowut ak loolu aussi dañ koo war waaw non non affaire yi moom moom man moom comme li may wax moom mooy dossier bi moom ni nga ko gérer. Mm. man je peux comprendre tey jii nag tey jii dossier bu xewoon bu fekkee ni Coro Mandela man dama def ay enquête mm-hmm. ah man d'après ma gis ni Coro Mandela dafa avoué. Mm. mais dama koy bind source a ak Omar lu mu mën a doon sama xarit damay yeew bind source a Coro endel Mandela avoue comprendre nga mm. mais comme je dis dossier la boo xam ne ni moom. elle n'a jamais avoué. yaa ngi dégg elle a dit que moom waa waaw waaw kon kon kon loolu laay wax man loolu nag je tiens à mettre ça en exergue pour nit yi xam ko moo tax man quand j'ai j'ai mené mes enquêtes am ci élément dama ko mettre en exergue pour nit yi xam ni tamit mm. kii parce que nit tamit tout le monde a voix au chapitre nit ku nekk xanaa nit ñi ngay toog sax di nga am défense léegi man seen métier mi est-ce que tiitu leen ci <laughs> parce que métier moo xamante ni fi mu toll nii actuellement jafe-jafe yaa parce que journaliste bu doon sax peut-être journaliste yoo xam ni tàmmoon nañ nekk ci yenn kii mais suñu journaliste yi dañoo tàmm lu nooy maanaam affaire yi neex te jamono ji ñu jëm nii mën na metti lool ci journaliste yi parce que boo waxee yëf yi demee neneen nga gis nii am na journaliste yoo xam ne ñu ngi leen di woo maanaam pression boobu nga xam ne tegu na ci kaw journaliste yi maanaam dafa mel ni léegi ñaari camp fi nekk journaliste boo xamante ni bii. Sonko euh, euh, am na journaliste yoo xam dañ leen a ne Sonko la ñu àndal am dañ leen dëkkale ne. Euh, Macky Sall la ñu àndal. maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkale ne Sonko la ñu àndal ñi ngi ci ay fitna est-ce que fi mu toll nii tey du ngeen dem ba bu ngeen gisee sax lu jekk ci sonk journaliste yi di ko moytu ne wuurut. <laughs> wala buñ gisee fële est-ce que censure boobu tamit du commencer di am. di mamaa ko journaliste yi gars yi gars moom fa la ñuy jéem a yóbbu boo xoolee waaw intimidation ni muy kii ñu jëm la yóbbu nga fexe ba euh, lu lu neex régime bi nga koy wax hmm. lu lu lu naqari waa opposition nga koy wax mais comme ni ma la koy waxee rek man moom maay fàttaliku temps yee Daouda caam woo na ma ne ma dama koy wax fii quoi euh, temps yi am na benn ministre bu ñu woo naan ñu waa source a yéen ça fait deux semaines yéen a ngi nii doo leen wax lu dul lu naqari réew lu lu kii ah, waa état bi comprendre yaagul dara xalifa euh, euh, Sall tamit euh, temps yee ñu doon bind ci affaire u yeewi askan bi je le di yaa ngi dégg mhm. ñoom tamit ils avaient l'impression que nous on est contre yeewi mhm. barki démboo njaay la ma benn député PDS woo naan ma source a lan moo tax ngeen bañ waa PDS comprendre nga. waaw kon ah. seen yoon. waaw comprendre lan moo tax ngeen bañ waa PDS <laughs> parce que te te te te pourtant ñun on a prendre un expert mu wax ci affaire u candidature xali kii Khalifa ak Karim wax affaire u Karim ne Karim tant que amul euh, modification L29 L30 L31. il peut pas présenter ndax code bi nu mu tëddoo nii xam nga kooku expert moo wax waaw kon ñun waruñu ñu ñu meree waaw bu fekkoon man maa bind def sama commentaire wax loolu mën nañ ma mere mm-hmm. waaw kon loolu la rek journaliste moom buy def liggéeyam moom du du tey tey gars yi jubóog yow tey nga def papier nit woo la kontaan suba mu woo la mere la waaw fekk hmm. boobu yaa ngi sa liggéey. fekk yaa ngi sa liggéey ah, rek mais ñun dañuy continuer def suñu liggéey rek bu ñu ah. demee na ba journaliste mënatuñ ko def ñu dem def ji leneen Omar. <laughs> Euh, Omar. Hmm. Euh, nan nga gisee li nga xam ne rek moom moo di jàkkaarloo ki nga xam ne rek moom moo di président euh, président de la république ak ki nga xam ne rek moom moo di El Hadj Assane Gueye nan nga ko gisee en tant que journaliste. waaw bon loolu moom loolu moom. kii la rek question yi nga doon yëpp Assane posé na ko wala am na yu manqué pour yow. bon de toute façon loolu moom man nag damay wax sama dëgg de. man sax dégluwuma ko. déglu dé non seetaanuma ko quoi wax dëgg yàlla man xam la laa def. samay journaliste yu ko doon déglu. papier yu ñu bind. papier yooyu laa corrigé. comprendre parce que euh, je me que peut-être loolu euh, stratégie de communication la comprendre nga. Mm-hmm. Euh, moom moo doon communiquer. waaw bugguma sax. tooñ sama doyen mais xam naa ni euh, d'habitude nu muy demee rek day am protocole d'interview li nga may laaj dooma laaj lii affaire yooyu bu nekkul loon loolu kay xanaa président day def ngan di conférence de presse la woo ma woo keneen ñu ñëw toog poser ko question bu ñu neex mhm. xam nga ba pare Euh, def nañ kii bi ba pare fu ñu tolloon rek lañ tollaat troisième mandat da nga koy def ne kii nii wii nii non kon kon kon lan lan fondamentalement lan lañ ci lan nga doon xaar mu wax ko te waxu ko waaw mais mais mooy surtout loolu surtout loolu mu ne ñu mu ne ñu tey jii parce que Macky Sall quoi qu'on puisse yàggul dara yaayu quatorze morts yàggul dara reyaat nañ fa ay nit mm. ñëpp fàttaliku nañ jamono jamonoy Ablaye Wade affaire troisième mandat ñaata nit ñoo dee Sénégal ndax loolu Macky Sall bu bu toogoon tey jii ne duma def troisième mandat ba pare bàyyi képp ki nga xam ne da nga bëgg a présenté wu ay une élection présidentielle nga présenté wu mooy société civile bi ñoom mu njaay siise lu ñu wax mooy tey jii article L vingt neuf L trente L ñu modifier ko mm-hmm. mais jàmm ne ñooy euh, Macky euh, euh, Sonko mën a dem Euh, Karim Wade mën a dem Khalifa Sall mën a dem Bougane mën a dem Gakou mën a dem Sénégal jàmm ne ñooy. Mhm. waaw parce que ñun Macky Sall bañ koy jox dëkk bi dañ ko ko jox ci jàmm. Mhm. dafa am transmission pacifique du pouvoir. Mhm. moom dafa war a fexe tamit transmission pacifique boobu am troisième mandat ñëpp xam nañ ni fii Sénégal man man je le dis man man mais nag ça ne m'engage ça n'engage que moi man dama li ma xalaat moom dama koy wax waaw mooy Macky Sall warul def troisième mandat bu taxawoon tey jii ne man defuma troisième mandat ñu loolu lañ doon xaar waramul leeral ñu sax nañu way euh, damay def troisième mandat. nit yi sax xam nga du yaakaaroon ni tamit journaliste yi ñoo lëndëmal mbir mi parce que lu leer ba pare ci jaroon di laajaat. Mm, euh, parce que président moom taxaw na. non signes yi c'est que. mais y euh, xam nga signes yooyu. Mhm. man annonciateur man man yooyu. est-ce mhm. que jaroon na suivre président Macky Sall taxaw na fépp ci réew mi loolu kenn du ko ci seen taxaw na kii tey li nga xam ne bi ñoom waxoon nañ ko ne constitution bi lii la bind leer na nañ kenn mënatu ko interpréter première ministre de justice Ismaïla Madior Fall taxaw wax ñu ko ñetti yoon répété ñu ko. Mimi Touré waxal ñu naan c'est que waxu lépp Mimi Touré wax mais loolu yëpp yéen di wax waxaat yi yëpp. mooy laaj bi ci nit ñi topp. waxaat yi muy waxaat. ak ak waxaat yi nit ñi est la moralement mën nga bañ a nekk may may na ko laaj bu njëkk ba c'est man dama ne. li indiwaat débat da nga ñoo indi problème bi indiwaat débat bi nekkul ni journalistes yi ñoo ci topp parce que buñ ci topp doon xam nga tey man man naa wax li may wax yépp ma bëgg a labajaat carte bi mais ñii njëkk a génn di wax noonu ak di ma ko laajaat pour ma leeral ko est-ce que du ñoo lëndëmal mu ñoo ma permettre pour ma mën a lënd malaat mbir yi naan non mbir yooyu moom du ma ci wax nga ci ba waaw man loolu thèse bu plausible la quoi maanaam tey ji eh, comme yow li nga bëgg wax mooy il faut pas des problèmes yow là où il y force de ñuy wax troisième mandat troisième mandat troisième mandat mm. day mel nii sax dañ koy xaw a yokkaale fit quoi nga bëgg a waxee quoi loolu moom mën mun waaw loolu moom kii la quoi comme tey ji ba doon def commentaire rek mën nga fëlee foofu wala def analyse mën nga fëlee foofu mais tamit président. Mhm. tey jii boo xoolee signes euh, sign signes yi. signes mhm. mooy signes mhm. boo xoolee signes yi. ñu muy def waaw nga xool ni. Euh, Euh, parti yëpp tous les partis yi nga xam ne ni tey jii képp koo xam ne ni candidat nga à une élection présidentielle États-Unis seen élection kañ la du 2024 mm-hmm. Biden deful euh, deful déclaration de candidature à à une année parce que élection da ngay def da ngay teel a def nga gis Benno Bokk Yaakaar kenn deful déclaration waaw ku taxaw ne damay kii Macky Sall warul kii ñu dàq la xam nga li la léegi xel xelu sénégalais yi day day xaw a tee ba pare nga gis ni tamit bépp nit boo xam ne nii jug nga pour ne man dama bëgg a doon président. da waaw da ngay. Ah, xam nga koy xoolee loolu leerul bi muy xaw <laughs> wax dafa xaw ay mbiram moo xaw troisième mandat sax man fi mu gën a comprendre bi muy wax ci Idriss Seck ak ni ko Idi tonto da ngay xam ne Macky mi ngi ci logique gu. troisième candidature ah, parce que nee na. parce que Idi bu nee nekk nekk maanaam nekkuma candidat à la candidature de Benno. Macky na Benno ku ci ne doon candidat la da génn may ñu Idi génn may ko maanaam bu doon Idi dafa nekk biir Benno nekk candidat mun nañ wax ni. mooy plan B moom day leer. mais le fait que mun ko puusal. kon mooy kenn du taxaw kenn du taxaw sama kanam. léegi nag euh, Omar pour jeexal peut-être que ñu ngi vers la fin mooy. Euh, reconfiguration politique mooy Idi Macky ñu ne daal baara yëgoo la pour euh, euh, gàllankoor Sonko Idi ne mooy sauf chef de l'opposition situation boobu actuellement ñuy dund nii pour yow lan la. waaw loolu moom mënuma ko dàq quoi parce que mooy comme on dit y a eu un divorce à l'amiable entre Macky waaw waaw am baara yëgoo moom mm-hmm. mënu cee ñàkk man ah man man lecture bi ma am ci ci li ma foog xam nga lu tax mm-hmm. tey jii comme opposition bi nu mu naree dem euh, présidentielle am ay candidats noonu la pouvoir bi tamit mel nii dañuy xuloo seen biir xam nga mën na niroo xuloo parce que mm-hmm. lecture boobu mu mënoo ko jàpp carrément mais tamit mënoo ko dàq mm-hmm. parce que tey jii boo xalaatee boo xoolee élection ban élection la fi ko dem deuxième tour dem jàppale Abdou Diouf mm-hmm. loolu ah, yëpp mën waaw waaw xam nga loolu yëpp mën na am tey jii te Idi moo ngi créer benn genre diversion aussi loolu ba pare di commencer attaquer waat opposition bi naan man maay chef opposition. Mhm. fan la ko teg. jënd ci këram. Ah, chef xam nga xam nga xam nga xam nga loolu tamit boo ko xoolee. boo boo xoolee lecture bi tamit. di nga xam ni Sonko ah Sonko moom Sonko moom actuellement taxawaayam moom mooy nekk droit dans ses bottes mooy comme que moom tey jii nii kandidaa la. tey su Sonko sax candidature am on sait jamais parce que mu wóorul tey jii ñoo ngi naan dossier euh, viol criminel affaire yooyu tey xam nañ dossier criminel depuis criminalisation waa xam nga affaire yi dafa xaw a doy waar mm-hmm. xam nga vingt affaire yooyu wala yaakaar nga ni loolu risque boobu gars yi dinañ ko jël ah. éliminer Sonko loolu yaakaar nga ko ak ah mais mais xam nga lu tax ma wax la loolu tey jii Sonko dafa am procès ak Mame Mbaye Niang ñu condamné ko en première instance. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñu gëmloo nit ñi xam nga juge bu ko condamné xam nga loolu dafa échappé journaliste yu bëri xam nga juge bu ko waroon àttee dafa jékki-jékki ñu ne juge boobu dafa désisté wu. Mm-hmm. maanaam dafa moom moo bàyyil boppam alors que juge boobu mosul désisté wu. Mm-hmm. yaa ngi dégg. ah bon juge boobu dañ ko dàq. Eh. waaw juge boobu dañ ko dàq. Euh, président tribunal bi moom moo ko maanaam dàq ko comme dàq ko biir tribinal mais da ko teggi foofu quoi moom mi waroon àtte dossier boobu jël keneen teg ko foofu léegi ba mu koy remplacer juge bi ci wàllu boppam da ko ne da nga may remplacer léegi da nga may defal une décision écrite mhm. buy wane ni yow yaa ma remplacer comprendre mu remplacer ko indi keneen léegi kooku àtte ko àtte ko mu mel ni àtte bi da leen décevoir mhm. parce que moo waral appel bi comprendre parce que y a eu un appel. ça veut dire que tey jii. ñoom ka nekk juge bi Pastef loolu lañ wax. waaw léegi waaw parce que bon y a eu des. bi bu ñu basé woo ci. Pastef xoolal wax ne dafa am délégation bu jógee. Euh, Élysée ñëw na ñu waxtaanee li nga xam ne mooy décision bi est kon loolu mbetteel am na ci parce que bu ñu avocat Ousmane Sonko boobu loolu la wax. am na ci parce que mooy li ma la wax affaire yi. da ngay parce que non maam Mbaye neew nag na. xam nga xam nga xam nga xam nga délégation boobu. noonu nan nga fay xoolee te avocat lii moo gën ci situation dëkk bi. Mhm. waaw tamit ku bu ñu kële waxee ne ñu amoon na délégation ñoom kon ñu porté waat plainte ñoom euh, loo ñoom la moo tax ñu ñu kiiwaat ñu defaat appel. xam nga dañ ko war a defaat dañ ko def appel dañ ko war a àttewaat le 8 mai ça veut dire que ñoom tey jii pareeguñu pareeguñu euh, dañ ko condamné deux cent millions plus deux mois bu ma jumul xaw ma waaw deux mois avec sursis mm-hmm. trois mois moom mooy doon Sonko day perdre éligibilité mm-hmm. kon ça veut dire que ñoom d'accord ñu ak li ma la wax noonu c'est très important ça Ndiogou foog nga bàyyi ko xel maanaam juge boobu ko waroon àtte war a àtte yeew ñu ne suba la procès bi ñu teggi ko fa. indi keneen indi keneen. keneen kooku àtte. mais àtte boobu ñoom. kooku ah, moom mujj décevoir présenté waaw léegi délégation boobu ngay wax dama bëggoon indi foofu benn précision. dama dama bëgg nga am benn beneen lecture côté boobu. Mhm. mooy tey jii tubaab yi yónnee délégation fii Sénégal. Mhm. nga dégg ñu ne. Macky Sall recevoir na Marine Le Pen yow loolu noo koy jàngatee Massi Macky Sall recevoir na Marine Le Pen rek loolu xam nga tey jii Marine Le Pen mooy Front National. Front National ñëpp xam nañ ni côté racisme lañ leen di jiiñ maanaam côté xénophobie lu ñuy wax africain yeeg yooyu. Mm-hmm. président yu bëri du ñu nangu recevoir Marine Le Pen. Mhm. comprendre nga parce que nit boo ko recevoir danga koy may benn légitimité quoi day mel ni yow yaa ngi ànd ci lu muy def comprendre nga Macky dem ba recevoir ko kon ça veut que entre Macky Sall ak France. <laughs> neexatul de. Mm-hmm. waa bul jàpp loole bul man man de jàpp naa ni Macky Sall ak France léegi nga déggaat ni mais le fait que ñu nëbbu tamit euh, ndaje mi nda ndaje kii bi mooy délégation ban mooy Marine Le Pen mais Marine Le Pen après euh, nda ndaje bi nëbb boo xam ne nii l'Express journal français génnee na ko mm-hmm. ñu toogaat fii ay journal ay journaux locaux génnee ko yëg ko kon loolu noonu Macky Sall il l'a fait exprès xam na ni tey jii mënul rencontrer mais France tamit état la comme Sénégal day am ay renseignements comme lépp quoi surtout fii. léegi yow bi nga xam ne moom la xawaan wax euh, gëmoo ko. bu bu bu ñëw ci Sonko daan bi lu ñu waxtaanee la avant gëmoo ko kon. non wax bi. lu ñu waxtaanee man man man gëmuma loolu. gëmoo man xamal la laa gëm. Mm-hmm. mooy. comme li ma la wax président tribunal euh, kii euh, kii tribunal correctionnel moom te loolu moom lu ma leer la quoi mooy moom dafa am mbetteel ci mhm. affaire yi comprendre nga man maa ngi doon laajte sax ndax est-ce que juge mais ñu àtte la tey pare tey amul délibération amul dara joxe verdict tey loolu Sadio kiiw la xaw la. waaw waaw lan mën sa xel tuuti. loo euh, ba pare euh, ñu defaat appel. comprendre ah. ñu defaat appel ça veut dire que ñoom tey jii bu fekkoon am nañ lu ñu bëgg ñu def loolu. Mm-hmm. léegi nag du ma du ma génnee wane wuñ loolu man dama jàpp ni euh, du Mame mbay mooy bëgg quoi parce que moom li mu wane woon mooy lu njëkk li mooy bëgg na d'accord. waaw mais ah. moom. est-ce que moom ci ay bëgg-bëggam lay dox wala day dox ci bëgg-bëgg keneen. waaw ah, mais lool la parce que Mame Mbaye dossier Prodac tey jii waruloon yegg fii euh, bu fekkoon ni moom dafa amoon ku war a porter plainte xanaa Birahim Seck la waroon porter plainte ah oui kon <laughs> Mame Mbaye depuis le début est-ce que ay bëgg-bëggam lay doxee. waaw loolu jar naa laaj. <laughs> <laughs> jaajëf waaw jeex na ko jox ñu lay gërëm bu baax. sant ah. Mhm. wax da wax sax may am ay chair de poule parce que gars yi comme booy dugg ci dossier bi pour ñu woo la day yomb te bu la kenn woo. Ah. Omar ñi lay gërëm bu baax di la sant waxtaan bi leer na neex na. Mhm. mais aussi sa taxawaay gars yi laam-laamee presse bi des quoi. mais li nga wax ni Omar est-ce que luy tamit du lu garaaw léegi nga dem ba nga xamante ni bii boo laajee ni sax bëggoo mu tontu ak tamit nit ki di ka loolu tamit est-ce kon loolu. waaw euh, ah, non garaaw moom actuellement moom wax dëgg yàlla <laughs> mais foofu la Sénégal ah, ah, fu fu ko fu leer nag laa koy teg de. macha allah surtout waa ci tamit coono bi nga dugg noonu. waaw man de bu ñu convoqué sama benn xarit Tidiane yàlla dafa dogal mu bëgg dama koy fréquenté mais daf may woo. di ma yedd euh, daf ma yedd di ma yedd une heure de temps quoi maytul ni maanaam da dem ba. benn mais Omar defe naa pour Moustapha affaire Pape Ndiaye bi ñu ko woowee defe naa du loolu. waa police loolu ah, loolu la gën a wax daal. parce que comme loolu lañ bind kenn xamul. waaw loolu dañ ko bind non dañ ko bind loolu lañ bind waa Phoenix bi loolu la bind euh, donc euh, voilà euh, ñëw des fois dañuy lire daal yàlla sàmm aar amiin amiin sàmm presse bi yëpp mhm. di rafetlu sa taxawaay bu baax parce que ci affaire coro bi liggéey bi nga ci def dafa am solo bu ngeen kiiyee rek bu ngeen bonatu la bind daal ñëw leen fii ba am na menuisier bu nekk fii ñu jël leen fa ngeen liggéey daaj oh, daaj kontaane oh. defar ay kii bang ak ay kii yéen oh, journaliste yi réew mi ah. Mm-hmm. Euh, Nouvelle Horizon xam Nouvelle Horizon Ablaye Bamba Diallo tey jii source A. Mm-hmm. ah xam ne tey à son âge rédacteur en chef source A du n'importe qui li ñuy jël responsabilité bi nga koy nekk réew mi aussi ne xale bu ndaw. Mm-hmm. loolu lépp am na lu muy wane. di la gërëm bu baax Omar di la bàyyi nga nuyo di nuyu Mimi sama xarit ah ñoo ko may soxna ñu waa Géejawaay. waaw waaw waaw dëgg la waaw maa maa ngi nuyu soxna si di nuyu waa réew mi euh, di leen jaajëfal ci invitation bi leen encourager ah. toodi kerkeraani awliyaay ku weddi laajal xayru lan bi yaay ah mm. eh. waaw maanaam yàlla moom day nattu waaja ngir dara jaal ko wala mu mm. doon ëllëg ku muy baal ko àdduna moom comme que ñun moom passage lañ fi am rek du yàgg-yàgg dañuy dee moo tax nañ nekk ci lu ñu gëm daal mm-hmm. man loolu laa gëm ah waaw la rek nañ nekk ci lu ñu gëm dëgg la dina difficile affaire ak li ma wax surtout c'est important mm-hmm. journaliste nag mën na juum un journaliste peut se tromper nañuy def triangulation di def recoupement vérifier affaire yi surtout jamono ji nga xam ne manipulation dafa bëri lu la waaye wax man information ne jaralatuma loolu comme wax nii non non damay vérifier recouper vérifier mm-hmm. jéem a xool ndax liñ ma wax. dëgg la man loolu xam naa dara des fois nga lii dara woo ma ne lii loo ci xam. waa kay noonu la demee quoi te loolu dafa am solo Omar maa ngi lay gërëm bu baax. di la mm-hmm. ñaanal suñu borom gën la yokk jàmm ci bi. dafa la jàmm ah, bi muy ñëw daf na day watu maa tax watu woo quoi. <laughs> Ah, parce que nee na parce que ni nga ñëwee la. waaw mais Omar euh, naa ci yow di la ñaanal jàmm. kon mun ngeen suivre ci solution info TV tamit. mun ngeen di fa seetaan ak Walfadjri yëpp kon mu mm-hmm. ngi